asalaamaaleykum mbokk yi tey la dibéer ñeenti fan ci weeru diggi gàmm ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak ñaar ci weeru sàttumbar ci atum ñaari junni ak ñett ak benn ñeenti fan bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci dibéer ji rafet na ci lépp li ñu ciy tere tere wàccandiku mooy ku ca tàggoo wala ku ca watu ñaanu bis bi yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma sa cofeel ak sopp képp ku la sopp allahumma inni asaluka xubbaka wa xubba man yuxibbuk xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la nekk du ngeen dugg àjjana lu dul ne da nekk ay jullit du ngeen nekk ay jullit lu dul ne da ngeen a soppante dee leen siiwal ab nuyoo kon di ngeen soppante maa ngi leen di wattandikuloo ak mbañeel ndax mooy aji wate ji waxuma nag watu karaw waaye diine lay wat demal ko ba dara du fa des xadis bi buxaari moo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wallazi nafsi bi yadihi laa tadxulu aljannata xatta tuslimu wala tuslimu xatta taxaabu wa afsu salaama taxaabu wa iyaakum wal buxda fa innaha hiya alxaaliqa laa aqulu lakum taxliqu saar walakin taxliqu diin rawaahul buxaari waxtu julli suba waxtu dana tàbbi juróomi waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak benn tisbaar benn waxtu wu tegal fanweeri simili tàkkusaan ñeenti waxtu wu tegal fanweeri simili timis juróom ñaari waxtu wu tegal fukki simili ak ñaar gee juróom ñetti waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak ñett loolu mooy waxtu julli ci Tuuba ak li ko wër